loolu it nag maa war a sëñ. ndax dama ko xamoon. dama ko waxoon dama ko waxoon. moom lañ xam moom loolu naa ko naa ko doon. maa war a sëñ. maanaam boo defee soxna si kon defaat naa ko sëñ Maodo boobu boobu. waaw moom maa war a sëñ bi nag. sëñ Soxna moom moom sëñ Soxna naa ko si woon. waaw kay maa moom moom maa war a sëñ moom laa ci teg. moo moo tax nga defal ko. waaw waaw moo ko nga boole leen ko. boole leen ko waaw kàlla waaw kàlla waaw kàlla. ndeysaan ndeysaan. moom moom moom moom loolu la. ma ne ma ko wax dama ko waxoon lii. wala soxna si تؤكد تؤكد يعني ما ما ما يجيب ولا ولا مورد تؤكد فديري ما ينام مو في مو في هذا الله يجيب بشري المراغي فين فلت ديك المريد يوحنا سي مدلا من امر ولا يوحنا بشري المراغي ما فاتت بشري المراغي سي مدلا من ديو ما خلنا درجة نعم إفني إفني أكسيدي أنا suñu boo koy jàng. dana comme la wut. waaw nee na kii rek moom. boo a jàng daf yaa a ci biir tata. sama faj ji la. tata ji wër nga ne na ko doole ah a yéeme na di. loolu wax loolu wax waaw loolu wax kay nag loolu la loolu itam mooy mooy ni ma ko ah ci li ma ko jàppee rek la. a lay Mbacké lay xam nañ ko baax ay lépp doy ci naaw léer loo xam ne sax bu ñu yeete nga jiitu ji man kay man kay Mbacké jiwee man kay jiwee man man kay maa war dama gan ñi sax man kay daa mujj ma ne wax daa mel dañ may ganale te man du ma gan doo gan doo gan waaye daa bari doo gan waaw Mbacké lay Mbacké lay ndeysaan ndeysaan jërëjëf Mbacké jërëjëf ñooy sant bu baax ñooy sant bu baax tubaarkalla tubaarkalla salaamaaleykum suñu xol daal nga soxla. jërëjëf Mbacke jërëjëf toor kër jërëjëf jërëjëf jërëjëf toor kër. li gën a am solo mooy. li li li mënut a ñàkk rek di déglu. loolu loolu loolu loolu daal nga ci soxal bu baax. alhamdulilah alhamdulilah ji gërëm ji. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. gën a taxaw rek ba ci kanamam. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah xel daal na bu baax a baax. te it yi it yi bokk. xel daal na ci yow waaw waaw yëg nañ ko bu baax a baax yëg nañ ko it yëg nañ ko te ak ñeew rek moo ci moo ci dox moo ci nekk ndeysaan ndeysaan jërëjëf mbokk jërëjëf jërëjëf ñoo ngi sant baax na te santaane tali bi ñëw taxaw ngeen taxaw ci liggéey bi xam nañ ko ak ñëw rek moo ci am ndeysaan nag tawarkalla daal noonu tari bi dëggal yëpp daal fi ñett muy dëgg ci ñun نقول له خالي سنج فجد الدلال يسون خير من سنج فإن وما كان الله ليعذبهم وما أنت فيهم tax na noo xam ne moom li fekk yaa ngi ñoo ngi lay gis nga duñu gis si bëtub yërmande bii mm. suñu borom daan la bàyyi daan la bàyyi xel ngir yow mm. loolu rek la mu di dëggal ñëpp seen xel dal ñëpp seen xel dal da nga ñaan yàlla di nga bëgg di nga bëgg liggéey sëñ a jërëjëf jërëjëf biig la biig laa santaane woon na it tey bii nañ maa si jàng ñeenti xasida yi mhm. liggéey léegi suñ Tuubaa jàppale la ko ci liggéey bi mhm. mooy yaa rabbi mhm. bi jaahil Mustafa an ak wa kaana xaqan ak rahmaanu rahim rabbi bi maa shaw lim bu ci waaye am rek na ko def ngir ñaan yàlla defal la jàmm liggéey leen ko ba noppi nag lu waaye mën ci it fi nii mu jox ko soxna si addi <laughs> am loolu rek dañ la koy liggéey nii sa tool bi digluwuñ nii sa dañ caane ba noppi nag dox la ko leer <laughs> jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf tool kam sant nañ bu baax waaw soxna si ñoom sëñ bis ma joxoon ndigal ñoo mhm. joxoon ndigal moom ñaar ñaar soxna waaw sëñ bis ma joxoon ndigal mhm. Mhm. <laughs> waaye moom ci boppam moo moo joxoon ndigal waaw tuwaar kala tuwaar kala waaye waxoon na ni ñu koy defee <laughs> eh, eh, waaw moom kon nag ñu jëlaat jéem digal loolu. waaw jéem digal loolu kon digal jërëjëf ma. sëñ sëñ sëñ moo moo moo ci doole nag maa war a sëñ. dama ko xamoon. da koo ko waxoon. dama ko waxoon. moom sëñ sëñ loolu dinaa ko dinaa ko